أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي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 يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ko jullit yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo di leen ziyaara te di leen baalu xaq di ñaan yàlla sunu nuyoo yi ak sunu ziyaar yi yàlla na leen fekk ngeen nekk ci jàmm yàlla may ñu ñuy àggali koor gi ci jàmm tàmbali nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañu ko àggali ci alhamdulilahi rabbil alamin tabaarakallahu tey nag ñu indil leen benn ci thème yi nga xamante ni bu dig yi nga xamante ni digoon nañu leen ko ngir di ci waxtaan ak yéen durant weeru koor wi incha allahu rabbi saa yu dog di waaj jot rek ñu ànd yéen gunge leen ngeen gunge ñu ci ay waxtaan yoo xamante ni jullit bi war na cee bàyyi xel rawatina ñi nga xamante ni bi ñoo dëkk Sénégal tabaarakallahu tey bi ñu andi yàlla subhaanahu wa taala dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko neel jullit ñi ñuy yéexal xëdd gi tey teelal ndogu bi am yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ci xadis ni ñun yonent yi kat bu weeru koor mësaana teru ak kenn ku nekk ni la ko yàlla sante woon bu heure xëdd jotee nang ko yéexal waaye bu dog jotee nang ko gaawal loolu nag bu mu benn saareen dégg wala saween ba jàpp ni li nga war a def mooy euh, yàq sa koor lan mooy yàq sa koor nit ki nga xamante ni dafa war a woor li jiitu ci moom pour mu def ko mooy mu dugal yéene yéene ci commencement weeru koor maanaam démb kom nga yéene fas yéene ni fas naa yéene weeru koor yi ba mu jeex loolu baax na mën ngaa def comme démb nga dugal sa yéene bu tey tey boo dogee ba pare nga dugal sa yéene pour suba loolu tamit baax na waaye yàlla subhanahu wa taala loolu moo njëkk ci li jullit bi war a def ci biir weeru koor mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag na jullit bi di yéexal xëddëm maanaam bul nekk bul wane ni jàmbaar nga rek ba tax nga yeewu 4 heures du matin Euh, rek na naa xëdd déedéet dañu ni na nga xëdd heure boo xamante ni jege na heure bi ñuy salaatu waxuma tamit ni saareen yi di def téye seen bool di lekk di lekk di lekk di lekk ba dégg noddukat ba di wax allahu akbar ñu ne naa profité ak moom lekkali yeggali lekk yi doog a naan déedéet dafa am lu ñuy tuddee al imsaak mooy boo xamante ni bii waxtu salaatu des na quinze minutes wala dix minutes nga arrêté li ngay def nga xam ni di nga mën a euh, lekk ci euh, lekk sa teyu bakkan naan ci sa teyu bakkan galax dox ndànk dem ca jàkka ja xaar ñu salaatu loolu mooy al imsaak noonu la ko jullit bi war a defee waaye bul njëkkanteeg mukk waxtu yi ne naa profitoo lekk li may lekk gaaw balaa kiy nodd di wax asalaatu xeru na nawm am na ñoo xam ni dañuy jàpp ni fii kii nodd waxagul asalaatu xayru mina naw mi kon ñoom seen lekk dañ ko war a continuer waaw ki nga xam ne loolu lay xaar di xaar imaam euh, noddkat ba wax asalaatu xayru mina naw mi laata mu fay yegg courant coupé moom nan lay dégg asalaatu xayru mina naw mi ga kon lu baree baree bari ci kooram koor googu mën nañoo wax ni loolu mën na ko yàq kon foofu jullit bi bàyyi xel def attention ci heure bi muy bàyyi xëdd maanaam bu fekkente ni bi dañ ne la 10 heures wala 6 heures la ñuy julli 6 heures pile six heures mooy la quart wala six heures mooy dix war na fekk nga def li nga def yëpp li ngay def yëpp ba pare ba nga xamante ni na ko yàlla waxa waxee woon ci alquran kulu washrabu xatta yatabayana lakum alxaytu al abyad min alxayti al aswad loolu nag ci seen jamono moom nga xam ni da ngay tëj sa néeg di lekk ba keroog ngay xàmmee wëñ gu ñuul ak wëñ gu weex loolu nag boo ko waxee tekkiwul ni sunu jamono ji mën naa nekk bul teg mukk wëñ gu weex ak wëñ gu ñuul ne da ngay lekk waaw boo tëjoo ci biir néeg am na néeg yoo xamante ne bi bëccëg gi boo wàccee rideau yi tëj bunt bi da mel ni ku nekk ci minuit am na ñoo xamante ne bi nag bu fekkee foofu lañ ko nar a jàpp eh, tabaarakallaahu bu ñu defee noonu dinañ tëj bunt bi fekk 10 heures jot na kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax natt ko ci heure yi nga xamante ne bi moom la ñu sunu borom xam-xam yi jox ndax ku mel ni maam Cheikh Seydi Hadj Malick radiallahu anhu jàngal na ay boroomi xam-xam yu bari ci lu mel noonu ku mel ni Serigne Hadi Touré tey boo demee Faas Touré euh, doomam boobu di Cheikh Abdoul Aziz Touré xafisahullahu wa raahu bind na ci ay téere tabaarakallahu am yu baree bari yu ci jàngale nga xam ne heure bi fii lay commencé heure bi fii lay yem kon mbokk yi tabaarakallahu bii mooy premier numéro bi ci biir weeru koor wi ñu jël ko ci heure xëdd wi te Sénégal tabaarakallahu koorom bi rek mu ngi lay laaj ban heure la ñuy dog waaye mukk du ñu yittewoo mukk ban heure la ñu war a arrêté xëdd kon loolu dañ ko war a eh, leeral bu ko defee nit ñi bàyyi ko xel bu baax a baax incha allah seen deuxième numéro ñu ñëw ak yéen nag ci heure bi nga xamante ne bi moom la ñu war a xëdd wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.